ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba Xadim Rasool sant sëñ Fall bu wér a wér di ñaanal Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké fa mu nekk suñu borom gën a dolli ay leeram bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax a baax a baax ci teew gi ngeen teew fii tey fas ñu laaj suñu jàmbaar ja suñu yaakaar ja suñu Serigne ba Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilou waaw ci Mbàkke Bawol lañ koy tàmbale Cheikh Mouhamadou Lamine ak waa Mbàkke cohésion bi foofu noonu ak na mu doon na doon dundeek ñoom laataa muy nekk Serigne Fallou toog ci jotaayam laataa muy nekk fi nga xam ne nag moom mooy euh, moom muy nekk Serigne tubaa jaxasoo bi mu jaxasoo woon ak askanu Mbàkke laa bëgg nga delloo suñu tur ndax yow ku ko jege woon la waaw loolu moom dafa yàgg moom wax dëgg yàlla Cheikh moom leen baare moom ku wax rek xam ne moom Mbàkke moom Mbàkkeem la woon ndax fii yaakaar naa li fi am si kër bëri na loolu si Mbàkke gi am fi njaboot tamit deux leen fi ñu toog fi kon Cheikh mu leen baar dafa yàgg waa Mbàkke te mën naa ne bis bu yàlla sàkk daana ñëw Mbàkke bëggoon Mbàkke lool ndax dafa xamoon waajuram woo sëñ Fàllu fi mu tegoon waa Mbàkke moo tax mu ñëw jaar tànk yooya maa ngi fàttaliku li may wax ni yàgg na lool sëriñ Baara Euh, événement naar yi fi amoon naar yu bari bu ñu deewu tey ñàkku seen alal sëñ baara tax ñàkkuñ ko ndax guddi googu dafa ñëw mu ngi doon ñëw mbaak xewar kër sama waajur jigéen moom fa ñëwee gis ñu attaqué naar yi mais moo génn dàqe gaa yi ñu daw ñoom ñëpp mu jël naar yi su bari yóbbu leen allié rawal leen si ak yërmaaneem laay wax rek mhm. ak ak mbaaxam ak oyofam kon loolu rek maanaam wane na moom mbàkke la am ndax euh, Mbàkke war na ne événement naar yi fi nekkoon ci naar bëri na mais ku ci déwul rek grâce à Cheikh moo leen baa tax deewoo ndax moo la sauvé ak yeneen yoo xam ne yu mu doon def Mbàkke ay intervention yu bëree bari bëgg démb rek maa ngi fàttaliku am na ko may nettali ne dafa jamono dafa yàgg xam naa boobu sax nee na ñun ay juddooguñu woon mu ne boobu tubaab yee fi nekk mu yor benn moto moto tubaab yi déedéet bu waa ji nee na ba mu ko yoree mu dem di génn sàcc moto tubaab bi di dawal te gendarme yi ñu jàpp ko te bañ ko jàppee ñu téye moto bi ne ko amoo permis nee mu ñëw si tubaab bi tubaab bi ne ko dama lay porter plainte sama moto yi jox mu ne ko jël nee na mu tiit nee na mu dem fa ñu jàpp nee na am ku ne ko daal da boo demee suñ baara moom man suñ boo ko demee moom da nga moom boo demee gendarme da nga lijjantiku nee mu ne nii rek sëñ bi romb ko mu arrêté ko nee na sëñ bi boobu mi ngi yor benn 405 bu xonq la wax nee na ba mu ko arrêté eh, mu ne ko ah man de am ay jafe yu ma yu ma wax te dinañ ma yor man dara mu ne lan la mu ne ko ah man ko te aluñ ma ko ñu ñu sàndamay nangu ko ci man te tubaab bi ne damay porté plainte ndax alu ma nañ dem mu ne ko fan lañ nekk mu ne ko ñi ngi taxaw xaw ma fan sàndamay ñu ngi taxaw buntu kayal ak mu ne ko nañ dem bañ mu ne mu woo sàndamay ne ko kii de sama taalibe la te moto bii ñu nangu moto bi jaamur la te borom a koy sonal neen gendarme ne ko ban moto la mun a bii mun na ko jëlal te waaj ne boobu sax xamul sax Cheikh Mouhamadou dañ ko wax rek ne ko daal kii daal boo fa dee moom dana la toppatoo mu lijjantiwul loolu may ak mooy kon ko moom moom li muy def lijjantiwul ne kii doom la kii taalibeem la kii dara moom moom li ko ñor mooy nit ñi am jàmm rek Cheikh Mouhamadou leen baara chaque jour si la daan dox te wax dëgg yàlla njaboot gi fi bàyyi tamit man gis naan ci lu la ñuy dox mooy jàmm ak salaam sëñ Baara mën naa maslaa fonk na doomu aadama te xool discours yëpp yëpp yëpp yëpp li muy wax rek mooy taalibe yee fi nekk lu fi am taalibe yi la moom foo la tegoon tànkam moo tax suñu borom may ko lu muy wax dëgg yàlla mayu ko kenn tam mun koo weesu ñu ngi ci sant bu baax a baax na ñaan yàlla suñ boroom tax ñu sa barkeem ak liggéey bi mu doon liggéeyal ya sëñ Fallou yaakaaram ja yàlla na wàcc ci njabootam. dafa mel ne euh, ci benn jamono tamit euh, comme ni nga ko waxee noonu euh, diggante bu wax Mbàkke foofu xam naa duñ ci des tuuti ndax ñu bëri la am na ñoo xam ne dañ ko daan di souvent lu ëpp muy ñëw fii mais li fi daan réglé ay problème yoo xam ne biir famille la ñoo xam ne nii dara ak sax maanaam kilifa yi mu doon ay famille mën naa ko comme soi-disant famille simple yi ci ñun rek ko mën a tuddee réglé seen problème ba génn lu ne sax syndicat yooyu dafa waaw moom xam nga ku ne ku sa waajur sëñ Fallou moom jàmm rek nga mën a dox ndax ku ne xam ne sëñ Fallou moom moo taxoon ne maay Sénégal jàmm rek sëñ Fallou xamut njaago ba xamut tijaan ba xamut murid ba xamut laayam ba xamut ba moom jàmm rek ko ñoroon moo tax si laan moo tax sëñ ñëpp ko bëgg murid beeg tijaan beeg laayeen beeg xaadir beeg koo wax ne sëñ Fallou parce que li mu doon doxee moo baax si si la tegoon tànkam tamit mooy fu sëñ Tuubaa nekkoon tegoon tànkam rek la sëñ Tuubaa teg tànkam wala Cheikh Modou Mbaar tegaat tànkam moo tax kon sëñ fa sëñ Baara dama ne li may wax gars yi dama ne sëñ Baara bu ngeen wax ci moom du fi jógee ci ak mbaaxam ak jaar ak ak ay actes da koo def ay actes actes yoo xam ni acte social yoo xam ne da koy def ci nit ñi ci doomu aadama yi man sëñ Baara mas naa ànd ak moom jóge ñu jóge Sonatel jëm Touba am na benn waaye bu jaay ay clé borom pousse loolu man ma doon oto bi. ku ñuy wax mun Ndiaye chef de village mu ma ngoon ci oto moom mën na maa seede. taxawal taxawal taxawal taxawal man pour man lu ne la man ma arrièreal ma arrière parce que lu tolloog ay 500 mètres bu doon tax waay mu taxawal mu taxaw mu ne waay kaay waaye dafa tiit moom mu ne woo am nga clé 10 ak clé 11 ak clé apib xaw apib apib xaw ma c'est-à-dire apib waaw. man waaw sëñ moom sama xel mu ne ko waaw mu ne ko jox ma waa ji jëlëb kele jox waa ji dafa tiit moom ndax ma ngi ñoom si daa tiit sëñ bi génn xaalis bi jox ko waa ji na ko ñaata la 3000 xaw ma katu yooyu sëñ bi génn bi jox génn 10000 jox ko waa ko déedéet suma ma du ma ko laal euh, addi sëñ bi na ko déedéet dama laa bëgg a dimbale ndax damaa xam ne Mbàkke ba Touba nga yor sa puus-puus bi def ñaari kilo def ngay puus dem te xam naa ne jaayagoo li ma la jëndal tey jaayagoo ko si journée bi léegi waa ci di jooy mu ko doon waaye déyoo ma dara ay kale dama laa bëgg a dimbale rek da ngay xool yooyu ko koy def kon moom sëñ bi mu ngi doon bàyyi nit ñi même ñëru dara mu ngi doon bàyyi nga ñëw nit wax sa soxla sëñ bi li bind si ay lettre kenn daa xam ne toll intervention téléphone bi lim si lim si lijjanti si ay fil kenn xaw nu toll maam sëñ bi moom sëñ borom ñu xéewle woon rek te nag wax dëgg yàlla macha allah. ndax euh, fu jamono tool rek bu ñu bu suñ baar nekkoon la ñuy wax kon lu doon sant yàlla wallaahi ndax jàmm jam daan doxee ak nam daan waxee ak man jëfee ak mbokkam yi bari woon yéene woon ñëpp jàmm nag mas naa wax ne yëf yi da defee xëysee rek suba dafay gontee demaat fa neen wax mas naa waxaat daan ne li fi nekk day ña ko moomoon dem nañ ñun ñu ko bokk ñoo ko fi ñoo ko ñoo fi des kon nañ koy waxtaanee xam nga ni kooku ku woon na yërmande yàlla nañ ko suñu borom bi fayal. Euh, digganteem ak euh, waajuram yi fi nekkaloon mën nañ ci lim ku mel ne Cheikh Abdou Khader ni mu ko jegee woon euh, ak ni mu ko doon taxawoo tamit Cheikh Abdoulaye ñoom ñëpp ndax mën nga ci jee dellusiwaatal. waaw waaw waaw waaw moom moom yàlla da ko dimbale woon moom doomu sëñ Tuubaa yi fi jaar yëpp parce que làq na seen ngërëm ñu Serigne saaliwu yàlla na ko yàlla dolli leer. sëñ Abdou Laat yàlla na ko yàlla dool leer sëñ Abdou Khadir ak ñeneen ñoo ñëpp sëñ alaaji am na seen ngërëm ndax dafa xam ne woo dafa xamoon ne li mu bëgg moom pour mu am ko tarbiya rek moo ko mën a may te am murit bu bëggee ngërëm day dem tarbiya ji moo tax mu xam loolu tel koo xam dem tarbiya ji njëkkee ko nag ci waajuramu tedd wa sëñ Fallou Mbacke ndax ma sama nit li ne ma sëñ Fallu de bu ma dem su ma gisul ci kanam du départ de nekkuma ci kanam ndax daanaka ne mbaar de moom bu nekk ci kanam sama xel day dal ndax lu war a ñëw ci man moom balaa ñëw ci man dana egg ci moom pare mun doon loolu daana ma li man yu bëri yoo xam ne mën naa ne ma ko wax ci mm-hmm. yu mën a nettali ci ay lim lu mu pare na amoon fit walla kenn mosu koo yàpp moo tax ñun doom yi ñu nangu kenn ku ñu yàpp. fit wam yoroon fitu gaynde wa moo nekk si ñun te duñ tooñ moom daaw tooñ moo tax alaj baara ku ko xam-xam na ne mu sa nangu kenn ku néewul di doole si kaw suuf ak koo mën a nekk nag du nangu ku néewul di doole xol bi mu yoroon daal moom sëñ bi maanaam xal bu salima ah? li yàlla eh, li suñu borom wax rek xol bu set xol bu xol bu xol bu bu bu bu set mu nekkoon sëñ baara danaan tëdd ba yenn heure yi ay guddi wala boo sax mën na ne tëdd sax parce que boobaa tout le temps mi ngi xool luy aar dëkk bi nga xam ne dëkk maamam la di ci jub di ci gëstu di ci tamit dox yoo xam ne ni maanaam euh, li mu ci daan def mën na ne maanaam ci sët yi euh, am na ci ñoo xam ne maanaam daaw ñu am sax fit def ko fit boobu noonu nga tudd sànq ni ko amoon fit la moom moo tax ba lenn lu ko jaraloon pour ko doon def ba tudd waaw parce que li nga xam dafa woon fit mooy laaj dañ koo dëyoon mu xam fa mu war a jaar moo tax sëñ Fall du koo deyoon mu xam fa jaar moo tax mu am fit nekkul xatu sëñ Fall sëñ Modou Moussa Dieng yàlla na ko yàlla fayal dégg naa mas naa wax naan nangu na kenn ma gën a bëgg sëñ Fall bu amee mooy sa Alaaji Baara. sëñ Modou Bousso nekkoon magam nekkoon xaritam sëñ Fallou boole woon leen donc bu demee ba tey seetlu loolu sëñ baar rek kon loolu lu wér la sëñ Faat bi mas naa wax daan ne am na état am ku ne ko sëñ bi maa la gën a bëgg sëñ Fallou mu ne ko man wanaasu naa baat bi li nga ko wax sax wanaasu naa baat bi kon moom dafa deewoon sëñ Fallou dafa jeexoon sëñ Fallou mu tax tey lii mu am mu am ko. Euh, loolu firnde bi moom mooy. Euh, doomam yi ñu ay sëñ Fallou la. waaw sëñ Alaaji Gueye moom lu am si sëñ yaakaar naa moom sëñ moom li mu si li mu si am yaakaar naa moom ñi mu bokkoon sëñ Fallou ñëpp moo si si ay ay galas yaakaar naa ko moom. Mm-hmm. ndax moom dafa mu tegoon sëñ daal daa am fu mu ko tegoon. judd sax ko. xoolal kasarajab gi ak bisam bi. moom léppam sëñ Fallou la. léppam sëñ Fallou gënu sëñ Fallou benn yoon kenn dara sëñ Fallou moo tax sëñ sëñ Fallou fayeekuwaat ko fa mu dëdd fayee nee tey. jour bi mu wàccee yan moment la la fekkoon ak message bi peut-être bokk na ci ñi ko njëkk a yëg nu mu la dikkee daal. ñu koy dundee rek xam nga gëm yàlla xam ne nit ñëpp ci yàlla lañ jógee si lañ delluwaat ba koy gëm rek te ñu moom tamit tàggatu nañ ci loolu. kon du si am benn problème li mooy li fi des mooy li doon ñaan moom am na ko dem ba bàyyi fi njaboot ko mën a di ko ñaanal ñu fu ñu jëlee dinañ ko ñaanal fu ñu toogee suñu xel dem ci moom dinañ ko ñaanal loolu nag ak cant la ndax nit ku ne ñaan nga yàlla am njaboot dem jiitu leen ñu lay ñaanal boobu ba ñu ko yëgee nag na si ñun mais après day gëm yàlla xam ne tamit moom la moroon def lépp def na ko léegi nag le reste mooy ñu ñu fi bàyyi ñoo war a ñoo war a égale mission bi rek. tey jii nii maanaam euh, ñu ngi fi bàyyi ci ak njabootam. Mhm. ñu bëri def leen yéen sax ci cohésion bi ngeen am. Mhm. en bi ngeen am. te it nag ki ngeen jël def ko muy sëñ Baara tey mu nekk fi muy sëñ Moustapha dafa mel ne ñàkku leen daal euh, sëñ Baara euh, ñàkku leen ko ba léegi loolu loolu moom njaboot sëñ Fallou gi moom ñëpp moom loolu yàlla sëñ Fallou yàlla ko dimbalee loolu njaboot sëñ Fallou ñëpp benn lañ moom koo ci jàpp nga ne yéen a bokk sax yéen a bokk nday yéen bokk bàyyi loolu moom macha allah ñu ngi sant baax alaaj ji bi njaboot nga fi bàyyi yàlla defal na moom kenn du leen dégg si dara ñu ngi si li war a nekk yaa ngi dégg li ñu war a am ñu ngi koy am te xam nañ barke bi Alaaji Baare mi ngi wàcc si ñun loolu rek moo am solo ah. bi ñu amoon ñoom ñu ngi koy sàmm ba léegi seen diggante waaw ñu ngi koy sàmm ndax Alaaji Baare dafa amoon ñëpp kóllëre moo tax tamit wax dëgg yàlla moom nit ñaa koy sàmm si njaboot sëñ Baara gi ñu ngi koy gën a dañ ko dañ ko gën a téel ndax jëmmi sëñ Baara ndax ñun dañoo amul lu suñ Baara képp ku ñu jàppale Alaaji Baara rek ñu jàpp la am na message boo bëgg a dénk ndaw yi Mbàkke yi ndax Mbàkke yow fi nga féete ndaw yi war na noo am seen maanaam avenir ëllëg ngir maanaam dund dundin bu neex waaye tamit dund dundin bu ànd ak taalibe surtout parfois benn fukk jàpp leen ndaw ñooñu loolu la dégg. waaw li may wax moom Mbacke yow li ma la wax rek euh, ndax dénk mooy ñu gën a góorgóorlu gën a xam ne yëf yi li fi nekk mayewul day jaay te li koy jënd mooy ak njub. njub li may dénk sama bopp laay dénk jur Mbàkke yi te fu ma toll tamit dama koy wax moom laay wax moo ñu nekk ci siraatal mustaqima jub fonk suñuy waajur man day li may wax rek ku boot bukki xat baaw la nangu naa nag maa boot moo tax il faut xaj baaw ma mais di ñaan sama borom tamit li ma yéene ci ñoom suñu borom defal ma ko ni ma ko bëggee te am nañ ci yaakaar baax a baax. waaw nit ki nag boo ko bëggee dimbale. il faut nga wàcc ba tolloog moom mën a ànd ak moom ngeen dem. loolu moo tax ñu nekk ay Baye Fall mën a ànd ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di conseil jeunes yi bu baax a baax ñu gën a góor góorgóorlu di moytu yu bëree bëree bëree bëree bëri ndax fan yi liñ ñu rafet li ñu fi gisoon rafetewuñ ko dara dara mooy yàq geeg yooyu parce que li ñu yàq ñu ñoo ko moom. déedéet bu ñu ko defar sax xam naa ndax euh, bu ko ñu ko def yu bëri mooy yàlla xam ne man bu fi nekkoon moom fekkoon lu bëree bëri du fi am. tax man yàlla dimbale ma ruus nañ ma te su ma la ñaan dañ ma may mais xëy na dañoo xamutoon rek booba tamit mais yaakaar naa lii duñ ko defati ñu ñaan nag ngir masawu yàqu yàqule ñëpp xam ne tamit ñu teg ko suñu borom moo leen ko natoo rek daa waroon a am si ñoom bu jiite loolu dara du metti si ñoom yàlla na yàlla def réew mi jàmm ak salaam yàlla na yàlla def réew mi jàmm ak salaam képp ku fi woote ay yàlla këpp sa kaw ndax réew moom. jàmm saam sax moo fi am ndax xoolal di xam naa ne Sénégal la am yëngu yëngu motu mu une semaine ñëpp fàtt ñëpp waa si jàmm ak salaam te yeneen réew da ay at ñu ngi ñu ngi teel teel jàmm moomu tey kon Sénégal war ñoo xaar ñun am nañ ay mag ñu baax ñu nekk si dëkk bi wallahi man tey laa a gëm ne am nañ ay mag ñu baax nekk dëkk bi ñi ñëpp jàppoon nañ ne ca tool yi mais xoolal motut une semaine tey fi ne macha allah lépp néewaat jàmm ak salaam yàlla na yàlla gën a dolli jàmm sant nañ baax a baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñaan yàlla bu daw nee ñu mën koo màggal nag màggal bu mucc ayib feebar bi jógee fi jàmm ji gën a dolleeku xéewal li gën a dolleeku nit ñi am doolee poos jeunes yi am ci luñ jàpp yàlla na ko yàlla def asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala sëñ Fallou ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di am mbégte nag ci waxtaan wut am solo yi nga xam ne baaxe nga ñu ko yaakaar naa kàddu yi moom képp koo xam ne dégg nga ko te setantal ko te jëfee ko eh, yaakaar naa eh, di nga ci waaye du du du lu kéem du lu kéemtaan ndax ku la xam dëgg dëgg dëgg eh, xam sa waajur wa fa tegu woon ak fi mu leen teg ku xam loolu yaakaar naa bu déggee kàddu yu am solo yi dana xam ne du loo xam ne kéemtaan la Euh, sëñ Baara nag daanaka <laughs> li ci mat a wax moom sëñ Fallou bàyyiwu ci dara ndax euh, li mu wax rek ñu ne yaay ki njëkk doon sëñ Touba ci sët yi loolu yaakaar naa euh, du lu ndaw te waaj guñ ko waajal ba tego ci teg ko ci yoon moo waral mu tege foofu kon sëñ Baara moom ni nga ko waxee rek yàlla dogal ñu dëkk ci dëkk bii di Mbàkke képp koo xam ne dëkk nga fi loo doon doon doon ndaw. yaakaar naa suñ baara moom xam nga ko waaw maa ngi ko bu baax a baax a baax bu masaa toog suñ buntu kër amul bis boo xam ne danga fa toog te sëñ baara du la romb cootom munta nekk loolu munta nekk yàlla dogalit mu amoon kóllëre ak suñu wayjur ñu doonoon benn rek yàlla boole leen ci lépp rek bokk jàngandoo doon ay xarit yàlla dogalit it daanaka ñu bokk semaine bi ñu fi jógee loolu suñ borom boole leen ko kon loolu di wane kóllëre kóllëre googu nag rogalaat ba ci njaboot gi ndax ku mën naa ne sax bu një euh, suñ suñ galas koo ko xam daanaka si nga doot nga ko xamee <laughs> foofu moom mooy mooy mooy sa kër. waaw yàlla dogal it ñu ñu defee lépp sa kanam oyof gi oyof gi <laughs> yaakaar naa. mën naa ne man si sa kanam laa laa laa defee lépp si sa kanam laa juddoo laa màggee waaye tey gisoo nga am oyof ak ma toog sa wet nii ngay sama kilifa di sama mag waaye teewut yaa yaa ma jox ndigal ne ma toogal fii kon loolu di wane it euh, wàcc goo xam ne euh, wàcc nga ko man nag sama kàddu dama ko jëm ci sëñ galas mii nga xam ne xëy na li ñu waxoon a xam sëñ baara xam nañ ko waaye dana gën a am solo ñu xam euh, sëñ galas ngir ñu mën a xam yar bi nga xam ne sëñ baar yar na ko ndax comme ni ma ko waxee sànq rek yàlla dogal na nga maanaam feeñee ci dëkk bi defee fi lépp màggee fi amit rôle bu am solo boo xam ne jànk fi ko fiy joué boobu ba léegi ndax euh, ku la xam xam ne euh, sa liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci ndaw li ndaw ñi liggéey la boo xam ne bu am solo loo boo xam ne képp ku dëkk ci dëkk bi rek xam nga ko euh, ndax yàlla dogal na ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ fi lu bari it xam nañ fi ñu bari it xam nañ fi ñoo xam ne bu njëkk nañ meloon njëkk ñuy xam Sëñ Gallass ak tey gii niñ mel du benn waaw loolu li li ko waral nag mooy tàggat gi nga xam ne yaa ngi koy tàggat ndaw ñi ci ci ab yar di leen tàggat ci jaamu yàlla di leen tàggat ci nangoo liggéey di leen tàggat ci liggéeyal sëriñ bi loolu kon liggéey la boo xam ne bu am solo la yaakaar naa liggéey boo bu fekkoon ne eh, ñëpp ñu ngi koy liggéey eh, jafe-jafe yi ñi nga xam ne ñu ngi koy jàmbat tey ci eh, jamono ji ci naw ñi jikko yi nga xam ne xëy na nekk na ci ñoom te wërta nekk ci ñoom li ko waral mooy manque de repère ak yu mel jàpp naa liggéey bi ngay liggéey bu ko ñëpp liggéeyoon jafe yooyu kon jóge na fi bu yàgg kon dina am solo lool xeeti liggéey yooyu képp koo xam ne yaa ngi koy liggéey te mënoo koo wax dana am solo lool ñu wane ko ba mu leer naññ xam ne liggéey boobu yaa ngi koy liggéey kon euh, sëñ Baara fam la tegoon yaa nga fa te ku la xamit xam sa diggante ak Baara moom gis sëñ Baara te gisu la yombutoon waaw ndax am na fa xam ne tegoon na la fa waaye yow it xëy na euh, jikko yu nekkoon ci yow ak euh, nangu goo nangu woon moo waral loolu mën a nekk. waaw ndax euh, nit it mën naa bëgg nit bëgg koo dimbale loolu waaye bu góorgóorlu wut mm-hmm. amaana loolu du du du mën a jàppandi waaye daal fa la tegoon yow yaa nga fa euh, liggéey bu am solo ba nga xam ne it ma nga ko doon liggéey te tàggatoonte la ci tàggatoon la ci it yaa ngi ci bu baax a baax a baax mm-hmm. xanaa di la ñaana rek suñu borom mu yokk la mm-hmm. euh, bàyyi la fi ba yéene ji nga xam ne am nga ko ci ndaw ñi rawatina suñ borom kàttan na la ba nga mën koo mottali ci gën ngaa rafete anam kon daal dañuy am mbégte bu baax baax rek ci bis bii di ñaanal sëñ Baara suñu borom yokk leeram Euh, li nga xam ne euh, yéene woon na ko lépp ci njaboot gi ak ci taalibe yëpp rek suñ borom mottali ko ci barke euh, way juróom wi tàddu wa Cheikh Mouhamadin il Fadil di am mbégte bu baax rek kon sëñ sii di xam naa kàddu yi dañ koy yemale foofu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu